périmètre bi par exemple. waaw da ngay def longueur plus largeur multiplié par deux. longueur plus largeur multiplié par deux. waaw c'est différent maintenant de trapèze. Ah, parce que xam nga ci ci ci rectangle. Hmm. ci ci rectangle mën nga ci am trapèze. oui boo dafa am benn triangle booy dugal ci biir. mais bu dee trapèze moom da wax somme des bases multiplié par hauteur C2. somme des bases lu yàgg. <laughs> waaw en fait yooyu c'est des mi ngi mel ne comme par exemple en classe de seconde. Hmm. am na lu ñu tuddee en mathématique delta. delta. oui eh voilà mm. mais delta pour que pour nga calculer ko il faut nga am moins 4ac. déggal loolu. waaw <laughs> moins 4ac waaw c'est donc c'est c'est par exemple égale 2x plus bx égale plus c. waaw par exemple xam nga xam delta boo déggee ñu naan la égale b au carré. moins 4ac. loolu mën nga ko traduire par exemple en lettre wala en en. dëgg par exemple comme nga ne woon tey aujourd'hui f dx ax plus bx plus c. Hmm. après tu calcules. Quand même. Par exemple, si je f de x égale par exemple 2x, mm. je te demande maintenant trouver f de racine de 2. Parce que tu remplaces x par racine de 2. Mais il y a une replongée, sorry. Ça, c'est les racines ah carrées. Ah ouais, racines carrées. C'est danga bëggoon maths encore. Trop même, beaucoup trop même, parce que dama ci doon exercer lu bare bare bare bien que série A laa doon def, moo tax en baccalauréat dama ci am moyenne. est macha allah en tout cas replongé nga ñu ci fu sori ah. Pape Laye ci yu bëri. Mm. jëm ci entrée en sixième beeg CFE bi. encore ay deux heures moins trois heures moins trente minutes plus xam nga. xam da ngay fab seconde yi traduire ko maintenant mu jox la minute. Mm-hmm. nga fab minute yóbbu ko par heure et tout ça yëpp c' est des yoo xam ni dictée bi ñu joxoon aussi c' était Abdoulaye Sadji. ah sur Abdoulaye ah, Sadji ok. n' est doo ko fàtte quoi yooyu. inchallah doo ko fàtte am na solo jërëjëf yaa oustaz encore une fois bonne chance aux potaches qui passent le CFE et l'examen euh, de l'entrée en sixième